établissement takku liggéey kër yaay mbenn gajaga dakar post caaro yi ñépp ko ràññee fii ci ndakaaru waaye dañu ubbi fu mu toll nii ñaari dépôt matelas dodo yu mucc ayib àndandoog waa usine sokamuus ak waa sosenap ak usine peinture coloris fii ci Touba ci dëkk bu tedd bi ci rond point garage daaru musti jano ak garage mécanicien ak tamit sur la route de Guédé en face fi charrette Guédé yi nekk établissement takku liggéey post caaro yi wol gérant ba amadou ndiaye ci 77 654 21 52 wala 76 518 66 62 waaye it bu dee ci Touba da ngay dem ba garage Daaru Musti Déran ba di Daam Ndiaye nga woo ko ci 77 910 16 16 wala 77 475 65 65 wala 76 668 16 16 ngir nga am ci matelas dodo yi nag bépp dimension 180 190 180 2 mètres 2 mètres sur 2 mètres 140 sur 98 190 suñuy matelas orthopédique yii bi épouser sa yaram te di ko defar sa yaram di noddantiku bu baax matelas mer gàddu nag am nañ ci bépp dimension dañuy jaay tapis grand modèle petit modèle chaise plastique ventilateur ay njëgënaay modèle yu mag ay njegenaay modèle yu ndaw ak njëgënaay seen best chaise pliante pan ak satala table à manger bassin Sosenap bépp dimension type orange Sosenap bépp diamètre triangle doore 2 mètres à 6 mètres pose pied balai brosse valise bépp série vente de peinture coloris 22 kilogrammes ba 23 kilogrammes ak huile 20 kilogrammes ETS takku liggéey kenn du ñoom.